bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibni abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim ixwati al-aizza samaaxata shuyuux ashaab al-maali ayyuha saada asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi te di yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar du leen balwaq te di leen balaq di ñaan yàlla yàlla noonu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98 point 5 kaddu bàyyi ko fii ci ndakaaru dellu siwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaar yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam te seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye fas yéene cee feggoog yéen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 yal na nu yàlla gën a aaral boppam yal na nu yàlla teg loxo bi jaahi sil wujud wa alami shuhud lépp lu nu jaamu yàlla mu néew ak mu bari yal na ko nangu te fulandil nu ko lépp lu nu mooy yàlla ci wax ci jëf lu nu xam lu nu xamoon lu nu tey lu nu teyul yal na nu ko yàlla jéggal te suturaal ñu àdduna ak àllaaxira yàlla bu nu yàlla topp dara dara dara dara bi jaahi sil wujud wa alami moom mi nga xam ne moo tudd rahmaan tudd rahim tudd gafuur tudd gafaar tudd latiif tudd raouf yooyu yëpp di ay magasin yoo xam nit rekk ko soxla te moom it nit rekk tax mu def ko yal na nu yàlla dugal ci yërmandeem jooju moom meram yërmandeem moo ko ëpp doole moo ko jiitu nee na sama yërmande jiit na sama mer kon yàlla bu nu yàlla mere yàlla bu nu yàlla jéppi yàlla bu nu yàlla yàlla bu nu ko décevoir ndax ba muy wax malaaka yi nii inni a'lamu ma la ta'lamun ah loolu par mënu ko passé comme moom jege noonu te far nanu ba tax ñu egsi fii tey ñu it li muy li muy téléchargé yëpp yàlla nanu teg loxo dimbali nu ndax jàmbaar rek jàmbaar amul ku nu dimbali rek am bu nu bàyyeeg iblis rek mu gañeenu bu nu bu nu seetaanee ak moom rek dara lu jar kon yàlla mun yàlla bàyyi ak yàlla mun mun a bàyyi suñu bakkan yàlla na yàlla dox suñu diggante ak seytaane duggan suñu diggante ak àdduna suñu diggante ak bànneexi bakkan yi yi trompé doomu aadama yëpp yàlla na musal bi jaay sidna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam loolu ñaanal suñu bokki daw way dawee ci biir suuf suñuy waajur suñu baay yeeg suñu yaay ya suñu maam yeeg suñu maamaati maam yee yooyu jiitu yi yàlla nañ sunu borom subhaanahu wa taala yërëm leen jéggal leen tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe te dugal leen ci yërmandeem bi jaay sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñecca yay ñecca di ay ceddoo ñecca tuub ñecca tuubul ñëpp yàlla ñàkk laa xam waaye ku la xam ku ne wala koo baaxee ku nekk dana la dana la dana la dana la gëm ku seytaane man ba nga bàyyi fii bor wala nga bàyyi fi àq wala nga bàyyi fii loo waroon a def te defuloo ko yàlla yàlla nga ko féete ca wàll woowa fayal ko àq ja mbaa nga fayal ka bor ba ndax foofa kat rëccu lay fekk jëf fay ci sa yërmande rek ak ñun ñi fi des ñoo leen mën a fàttali ko di leen ñaanal kon yàlla sa yërmande jooju yal na sa mbërtalu ca ñoom bi rahmatika ya arhamar rahimin ya balaale alamin belal nu ñaanal sama sëriñ ba sëriñ Alioune Sall sa fiitu belal ko nuyoo ak ñaan ndax na mu toll woon ca man toll ko ci ñun ñii de ay njabootam ci yërmande ci ñeewante ci cofeel fu mu toll di la lijjanti dina toppatoo lu jëm sa njaboot lu jëm sa jëmm ji nga gënal ko ñëpp musu bëgg fekk gàcce kenn musta fekke musta bëgg fekk defetu kenn lu ko nit jaraloon rawatina ku mu xam yàlla xam na ni tabaarakallaahu ku yewwu jooy yaa xam la la nga la nga deele sëñ Aliou Sall safi yàlla na ko safitu yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla xaare àjjana moo ak sunu jigéen ma soxna yu baane mbay yàlla na yàlla dugaleen ci àjjana yi gën a kawe mbo mook mbooleem ñu ñu fa fekk ak ñi leen fa fekk ak ñun ñi leen fa nar a fekk yàlla na app surayantoo bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa bu loolu weesoo ñu dolli ñaan ak cant rek suñu borom subhaanahu wa jéeme ko ci corona bii nga xam ni moo lëmbee àdduna bi la ma doon wax àjjuma jee weesu rek laay soññi sama bopp di soñ tam njaboot yépp bu ñu naagu bu ñu naagu mukk bu ñu naagu de na leen ci bàyyi xel bu baax a baax te déglu docteur yeeg gestes barrières yi Europe ga mu déparé woon ba mel na lu fa jeex day delluwaat na fa ñoom dañu ngi seen deuxième vague am na ñooñ sax confiné waat nañu yal nañu yàlla musal nag àttanunu ko mënunu ko talunu ko yal nañu yàlla musal amuñuy garab amuñu capacité mën a moytu amuñu dund sax bu nu mën a dundale suñu bopp ndax fàgguwunu dara kon nag bu loolu ñuy dal suñu kaw na moom daf nuy faagaagal kon yal na yàlla di fël mu jëm na le bu mu fi ñëw mukk mukk mukk yal nii mu commencé jeexe yàlla na yàlla yàlla wéyale noonu ba mu jeex fi tàkk tàkk tàkk bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ndimbal na ca fekk loxol borom na leen góor góorlu bàyyee moytu na ko bàyyeendiku bi na leen wacte na ko bi na neen takk masque yi tey sel yi ñu di ko toppatoo tey raxasoo saabu tey ñu respecte distanciation yi loolu am na ci solo loolu mooy ndigal li ñuy joxe tey moo nu yóbbu fii nu si kon bu ko kenn bàyyi na mooy moytu mesure barrière na leen ko sàmm bu baax a baax a baax a baax yàlla yàlla mottali yëpp loolu sutura xéewal di ndokkeel Baye Omar Gueye bu baax ci journée boobu nga xamante ni tabaarakallaahu <coughs> mooy journée diabétique yi te mu jiite leen jiite wu rafet def discours bu rafet keroog wax di yàlla ñëpp honoré na ñëpp xool yëpp sedd nañu xel yëpp dal nañu yal na ko yàlla may wér te jàppale ko te taxawu ko bu baax a baax a baax suñu xool sedd na addu beew taxaw say naw la taxaw ñu jiital la nga jiite ko def ko defin mu xam ne ñëpp kontaan nañu xool sedd na ñu nii di bokk ah bokk say njaboot ñoo ci gën a bég yal na yàlla sàmm la te taxaw la yaag mbooleem ñu ngi ko séqal bi jaay seydina Muhammad sallallahu taala wa mbokk yi nu ñëw ak yéen nag foofee nu yemoon ak yéen ci àjjuma jële nu génn xam ngeen ñu ngi woon ak ci sang bi alayhi wa salaam sayidul wujudi wa alami shuhud sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nag léegi nag dëkkmal baay bi ndax maam ji ki ki baay bi ci kooku lañu toll woon déggeen ngeen ñu déggoon ngeen ñu ca zam-zam teenu zam-zam gas na ko teen feeñ na xëccoo nañ ko ak moom wëri nañu ko leen atte yàlla atte na leen déggoon ngeen la nga xamante ni moom la ca Mawlaana Cheikh Hadj Malick wax ralu yàllaaw taanu mu ñëw itam yokk ngas ma gisaat na ci yeneen ay mbubbi koŋ ay boppi kéwél yu wurus ak yu or yoo xam ne benn buur bu ñu wax saa bu saa saanu wala saa buuru moo ko addi yàlloon kaaba ji ginnaaw xëccoo ak wuute gi amoon ci banu giir Jurhum ak xusaat ak xëccoo gi amoon ak coxor gi amru defoon ba sakkonteen ba yépp déggoon ngeen ñu ca àjjuma jee la nga xamante ni moom lañu ci waxoon góor gi di Abdul Mutalib dali nii nag man su yàlla dimbalee ba mam fukki doom yi góor dinaa rendi benn bi jaamoo ko yàlla ndax ñu man maa dimbali ci noggatu gi nu may noggatu ak néewal gi nu may néewal doole xam nañ samay nijaay nekkuñu fi ndax sama néegu day nekkul mbàkk ay doomi baay rek laa fi nekk sax sama baay fi nekk ma jiit na ñu may galgal waaye mu yàlla may fukki doom yu góor dinaa rend benn bi jaamoo ko yàlla li ma loolu naa leen doom yu góor ya fukk ya mat sëkk ak juróom benn jigéen mujj na fu mu romb rek ñu ni ko mottalil sa kóllëre gi nga waxoon ak sa borom yaa ko dige woon ginnaaw mu dajale mbokk yëpp sànni bant mu dal ci abdallah mbokk yi ne ko lii boo ko defee dana nekk aada ju bon ci ñun ndax dana tax ëllëg ku amati fukki doom da koy rendi mu ne lu muy def ni nam dii la xaybar am na boroom xam-xam bu mag bu fa nekk nanu fa dem mu demee moom mu ubbeenu lu nu war a def dananu ko def ñu yéegee kooku ni leen nag lii ngeen lan mooy seen diya fa kam diyatun kuntum bi biha su ngeen seen dëkk ca màkk ku fa rey nit lan ngeen koy alamaan comme ndàmpaay ñu ni ko ñun day màkk ku fa rey nit fukki giléem ngay joxe bu dee te yoo ko mu leen kon dem leen bu ngeen demee bakkanu xale bii da di génne fukki giléem teg xale bi sànni bant bi su bant bi dalee ci xale bi ngeen génnewaat yeneen fukki giléem ba keroog bant bi di dal ci xale bi tànk bant bi dalul ci xale bi kon lim bi ngeen war a génnee jotul kon kon noonu ngeen di def ñu ñibbisi génnee giléem yi par fukk di sànni bant bi dal ci xale bi ñu ñuy sànni par fukk bant bi dal ci xale bi ba mu mat fukki fukk di téeméeri giléem bant ba door dal ca giléem ya ñu door a rendi nag giléem yépp ren def kab sarax mbaam yeeg xaj yeeg bukki yeeg gaynde yeeg rabi àll yépp ak nit ñi ak ndeñ ment yi lekk ci ba suur loolu mooy saraxu abd abdallahi min rajul sayidul wujud wa alami shuhud foofu la ñëwoon nag ajjuma ma la mbirum rendi am na ñoo xam amuñu ci xam waaye bu wekkonte ni amuñu ca xam-xam rek noppi ca duñ ca noppi dañ koy seexluloo kay def wala yow mi nga xamante ni rendi sa mbir la ñu wax la fexe ba influencé la ba dootoo ba dootoo ñeme rendi rendi nag lu lu war la rendi sarax lu am la yonent bi salaa salaam moo ni assadaqatu tasuddu sabaina baaban min assuwe ab sarax dana fànq juróom-ñaar fukki bunti musiba yoo la naroon a dal euh, boo sukkandikoo ci giléem yii kon jot na bakkan kon am xar mën na jot bakkan mën ngay dugg ci mbir nit li si xaaral la ni la rendil xar nekk tekkiwul ni ku rendi xar rek deret ja jinne nga koy jox mbaa aw rab nga koy jox déedéet loolu gàtt xel la jinne yi moomuñu nit ñi waaye kon xanaa yàlla nekkatu fi keroog bi nga xamante ne ñu ngi fas yéene rendi Abdallahi mii yàlla mënoon na ne rek ren bu bu leen génne leen gileem yi bañ koo rendi waaye téeméeri gileem yi jot ba kanam kenn ku ne na sa cër toll ak la nga àndal moo di sa sarax moo tax bokk na ci rafetu xam-xam li si di Malick wax radiyallahu taala anhu mooy man qalla ilmuhu kasura inkaaruhu ku sa xam-xam néew da nga bari looy weddi ak looy diingat lu ñëw nga raddu ko lu ñëw nga dàq ko génne ko ci te Serigne Cheikh naa ne ku jàng lul téeméeri téere foo fekk fi ñu warante xam-xam waroo caa bokk te ñun jànguñu sax téeméeri di wax ma sax téeméeri téere waaye fukki téere yoo mokk la yoo dégg sax yombul te lu ñu wax nga bëgg ko inkaar bëgg koo weddi di raddu nit ñi de loolu tam bokkul ci rafetu xam-xam loo xamul rek am na keneen ku ko xam loo jàngul am na keneen ku ko jàng gis nga ni docteur yi rawante ñii bëñ ñii bopp ñii góom ñii mbiri jigéen ñii ñii jabet ñii tension ku ne sa sa spécialité noonu la ñuy respectante soo demee ci docteur boo xam ne dana lii du spécial da lay bindal na demal ci place sàngam nga seeti diw loolu mooy def xam-xam waaye fii ci ci ji moom wala ci xam-xam yenn yi koo demul la jàppal ci yàlla non non loolu dafa xaraam na nga jàpp ci yàlla mooy kay mooy nga defaru la borom xam-xam ba def ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ni ko ana sa giléem gi mu ni ko giléem gi bàyyi na ko ak yàlla mu ni ko demal nga yeew ko door ko bàyyeeg yàlla waa kañ kon loolu lépp dafay dafay lii daf koy leeral maanaam rendi euh, euh, xoolal rek su sa doom juddoo loo koy weccee looy jëkk def tuur deret rendim xar xanaa kon loolu kon rab yi lañ kay jox xanaa kon xar moomu ñu rendi rab yi lañ kay jox lu tax ngay rendi xar di ko saraxe lii na mooy rendi xar mi saraxe ko waaye nag lu tax kon nga di ko rendi Ismaila wax naa la ni la ba sunu borom digalee baay bi ni ko rendil sa doom ji mu dem moom ba musdalifa ca jamra ya maa ngi naan musdalifa sax jamra ya fa ñu nekk jamaraat ya aqaba usta ula foofu la tëral ismail bëggoon ko fa rendi sunu borom yabal jibril mu jël am xar ñëw ronal ko ismaila baay bi rendi defe ne doom ji la rendi fekk na am xar la rendi xar ma kon moo jot bakkanuy doomu yonente boobu alayhi salaatu wassalaam kon mbir maa ngi noonu yaa ngi bëgg a dugg ci mbir ren di nga gàtt ngir sarax yaa ngi bëgg sañ sa kër ren di nga gàtt pour saraxe yooyu yëpp tekkiwul ne deret ja la ñuy jël di ko jox man sabax bi xayri ismi bi xayri bi xayrillah faqad ashraka yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku rendi loolul ci turu yàlla kon bokkaale nga yàlla bokkul ak ñi ne dañoo rek xërëm di tuuru bokk ak ñu nga xamante ne dañoo di jël deret ji di sotti sotti soow ak di sotti deret naan rab yi dañ ko jël si déedéet boobu bokkul ak bi ñuy wax sarax bii la sooy rendi ni bismillah daa di rendi ci turu yàlla fees defar ba mu jekk sarax ko ñu ko soxla sarax boobu bu ko yàlla nangoo mën na la ja jàppandal la nga bëgg mbaa yóbbu la fa nga fa bëgg fa bëgg àgg loolu il faut ñu il faut ñu xam ko macha allah nañu ko xamee noonu kon na leen bàyyi xel sarax <coughs> sarax am na solo lool sunu maam Abdul Muttalib mi bi mu ñëwee ba sànni ba bant ba dal ca giléem ya ca dañu rendi giléem ya mu nekk na nag jotuk bakkanu abdallah mi nga xam ni moo nar a jur sang bi alayhi salaatu wassalaam waaye yonent bi alayhi salaam daan wax ni saani sabihayni ñaari ñi nga xamante ni maay maay sutu ñaar ñi ñu naroon na rendi wala maay doomu ñaar ñi ñu naroon a rendi <coughs> ndax ismaila mooy maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa leen silsilaam diggante ak Jurhum ak waa Quraysh waa bani ak Qusay mi nga xam ne mooy juróomeelu maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali woon naa leen ko te waxtaan yee jiitu woon ni ki noonu itam naabit mi nga xam ne mooy taawu Ismaila silsilaam ci arab yi ba ni muy egsee ci Adnaan ba ni muy egsee ci Abdullahi mi waxoon naa la ko kon Ismaila mooy maam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye abdallahi mi nga xamante ni moo ko nar a jur mooy baayam ne na kon may ñaareelu sama baay mooy ñaareelu ñu ñu waroon a rendi ci diine ñu ñu waroon a rendi kon mbir maa ngi noonu nit ñi nag daal ci lekk ba suur ndeg ment yeeg rabi àll yeeg lépp luy jëfandikoo yàpp keroog bukki yeeg segg yeeg tilli yeeg muus yeeg nit ñeeg jinne yeeg ñëpp dañoo lekk ci ndawal ba àll bi mujj xeeñ xunn ak yàpp tabaarakallaahu ngir protéger bakkanu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mu ngi ci yoon wi kon sunu diggante ak jur gi diggante bu yàgg la sunu kóllëre ak jur ci maam aadama la ba léegi ndax maam aadama bi muy wàcc sunu maam dana ko yóbbaaleel ginaar gii di siq nga ànd ak moom mu lay wéttali gis nga ganaar noonu la amee solo ci dunduk doomu aadama bokk na ci tubaab yi fi ñu gën a référé wu pour mën a régulariser heure yi mooy ginaar fu mu tëdd rek jant sono waaye ginaar fu mu génne rek jant fenk na waaw loolu bokk bokk na ci lii météo man di basé wu avant yii yëpp di xew machine yeeg yi ci yi ci ginaar day sab waxtu wu jot nga dégg mu sab beneen bi de mooy ginaar noppam dafa forox saa woo mu dëngal noonu rek dëkk nopp dëkk euh, dëkk noppam boobu rek xamal ne dégg na tur euh, turu yàlla te ginaar yéen ca tax tax sara ca suufi suufi suufi suufi ginaar yooyu bu ñu sabee yàlla ci mbaaxam euh, mën na mën na mën na mën na mën na ginaar mën na ko dégg moo tax ginaar toujours euh, waxam day day tudd yàlla waaw kuk noonu la loolu la xaw nuru mais uskuru laa noonu la noonu la ginaar ne uskuru laa leen moom tudd leen yàlla waaw waaw du du kurkuri am na picc yoo xamante ne noonu la ñu mel dañuy dañuy dañuy tudd yàlla uskuru laa yaa xaafiliin ci curu curu cuucuuj waaw ci puru ci yaa xaafiliin uskuru yaa musnibiin waaw léegi am ku ne ci tur ci ba cuuj mooy mooy kamaatu diinu tu daanu waaw kamaatu noonu leb leen noonu lañ lay fayee waaw noonu leb leen noonu lañ lay fayee moo tax la la lakk picc su la yonent yàlla Suleymaan moom mu ne ulim naa mantiqa tayr yàlla xamal na ma waxu waxu waxu picc waxu picc garab yi dañuy wax waaw wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walakin laa tafqahu tasbihahu amul loo gis lu dul sant lu sabal suñu borom géej gi day sabal suñu borom garab yi dañu sabal suñu borom ngelaw day sabal suñu borom picc yi dañu sabal suñu borom picc dañuy waxtaan soo gisee le monde d'animaux da ngay xam ni yow yaa xamoon li ñuy wax waaye seen mot de passe ak seen li ñuy doxale lépp dañuy takkan seen biir dañu sëy seen biir dañu am njaboot lépp lu nit di def euh, xayawaanaat yi dañ koy def waaye euh, mooy loolu mu ngoog yonent yàlla Suleymaan yàlla def ko ci mayoon loolu danañ toog ba yàgg mu ni dégg picc mi nu wax ñu ne ah Suleymaan loolu xamuñu ko de mu ne picc mi nee naan may tàggu neen day dem nàmpale doom ji ñu yéemu ci suñu borom subhaanahu wa taala waaw moom daal mu ngi daal mu ngi daal mi ngi noonu waaw gis nga mbaam euh, ni muy ŋaaxe ah subhaanallazi yusabbihu bihamdihi bihamdihi bihamdihi ma ngoog <laughs> déet déet waaye boo loo xamul rek daal di koy dugal ci po poubelle bi sànni loolu loolu loolu des ko def xam-xam nañu ci xam-xam nit ñi nañu sutandi ci xam-xam noonu ñu noonu ñu sutandi nag bu xasoon nangu rek ku ne xam lay sa domaine waaye doo bëgg a waabale lépp lépp yaa koy wax lépp yaa koy ton déedéet du mën na nekk njuumte am ñoo xamante ni seen xam-xam ci lasraar la am na ñoo xam ne dafa màcc ci ci ci ci ci ci ci listixaar lu ñu la wax du deñ am ñu seen seen xam-xam dafa màcc ci wàllu faj donte nag am na ay doodaan yu bari ci nekk yoo xamante ni pour seexloo ko nit ñi ko nit ñi ngir bañ ko yàq seeni marché yépp am na ci waaye nag noonu la amee xam-xam dafa am kon yi fi ngoog ndeysaan waaye walaa ji Malick ginnaaw événement yii yëpp nag bi nga xamante ni jóge nañ ci loolu lu ca tegu alaaji Malick nee na waa Abdou talibin min baad marra ila fataati zuhrata zaatul majdi wal karami wa abdu mutali bin min baadi marra ila fataati zuhrata zaatil majdi wal karami ala nabi wa layhim ajmaina salaama rabbina daa'im man amman bi sahbihimi alaaji maay nee na waa abdu mutalib bàyyi abdullahi mii di maami yonente bi salaa sallam min baadu ginnaaw ba nga xamante ne jóge nañ ci problème yi problème mu rend fekk moom mi ngi am soixante-dix nee na marra dëkk mal na fataati zuhrati <coughs> jigéen ju am taar di sëtti zuhratu maj majdi may boromuk teddange wal karami ak taraanga mu ngoog nee na ko nag nañ dem ma takkal soxna ndax takk soxna jot na samp kër jot na ci yow ginnaaw boo xamante ne bii nag góor am na fukki at ak juróom-ñett di dix-huit dina ñëw léegi ci at yi incha kon li nga fiy jege da ngay jàpp ne baay moo daan tànnal doomam ju góor jabar walla yaay yaay moo xam jigéen jëy nar a waaye doom ju góor nag baay ma ko daan tànnal ndax baay moo xam waaja ak ka waaj gaa ñi léegi dañuy waaj rek waaye waaja dëgg jafe naa gis waaj ba mel ni suppame solu ba mel ni jànjaar yi foo fëgg ñun la bismillah te fekk ndekk doo dara bari na fi de sama classe gii foo romb ak sa gis ne ñu defee yaa toj gay nag fekk doo dara <coughs> ku la may doomam déception yàlla nañ ci yàlla musal <laughs> kenn mësu koo gis rek tëtëtëtët eh, waaw Alaaji Maalik ndax moom àgg na ca moom lan moo xew ci yoon wi mu ni xam naa ko mu ni marra ala mraatin tudaa bi Fatima romb na jenn jigéen ñoom ñaar romb nañu jenn jigéen ba ñuy dem kër Aminatu ngir ñu takkal ko soxna si ci yoon wi romb nañu jenn jigéen ju rafet ju jekk alaaj maay jigéen ja nu mu def mu ni tabqil mamaala ilayha sàkku na ak jeng jëm ci abdallahi ni ko yow day gone gii gis naa ci yow loo xam ne nii soo ma ko mayee mën naa la jox takkaay yi ma am ci àdduna ak li ma am ci alal lépp te nga ñëw jàdd sama kër ma wax la li ma bëgg ci yow mu ni ko loolu lan la mu ni ko man li ma gis yàlla rekk laa koy seedeel doo ñëw nga ma yombalal la sama bopp ndax booba jigéen ji gis na leer gi ci Abdullahi nee naa la jigéen dafa dafa dafa dafa dafa am ay xar baax yu ko yàlla defal nitu yàlla goo gis ñu ngay jiiñ nitu yàlla jigéen ña xëccoo wuñu la ndaw ña xëccoo wuñu la am na loo dese waaw nit ñu baax ñu ngi fi gis ñépp jigéen a leen feeñal jigéen ñu baax leen yàlla di booleel ñu jaamu yàlla ci ñoom ba seen liggéey mën a feeñ te mën naa la ci wax firnde yu bare bare bare sang bi alayhi salaatu salaam xadijatoo jaayante ci moom ba mu takk ko jël alalam yëpp teg ko daañ ñëw ca kanam boo foofu sax sori na ñëwal fii Sénégal rek maam Cheikh Omar Fouti Tall radiyallahu taala anhu maam Adama moomu ñu tuddee Adama Aïcha te ñaar soxna jëkk a feeñu maam Thierno Sidi maam Omar ci mën a doon ndax dafa am may werante euh, Thierno Seydou mi jur maam Omar Foutiou ñii nañu Ousmane Tall. waaye bu ma ci mën a doon rek góor googu aadama jëkk a gis góor gi yiw gi ne ci moom xam mu xamal ko ni ko man dey ko baax laa doon wër te yow mii nuru nga ma ko baax waxtaanal samay bokk ma ànd yow jaamu yàlla Mawlana Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul jigéen ju baax ju ko yàlla booleel muy soxna Anta Njaay nangul ko lépp maanaam maam Mor Anta Sali maam Mor Anta Sali mii wajuru Mawlaana Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul kooku soxna Anta Ndiaye gën a feeñal ab liggéeyam ndax maam Anta Ndiaye moo dox ba yàlla dogal ñu dénk maam jaariyatullah maam Mor Anta mu am ci Mawlaana Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul kon jigéen ñu baax ñu yàgg nañoo feeñal nit ko baax Mawlaana Cheikh Haj Malick radiyallahu taala anhu maam roqeetu njaay moo ko feeñal ca ndar moo dem ci baayam ni ko man de góor gu baax gii ma yóbbul añ ñetti at a ngi yoo xamante ni nii sama bët musul tegu ci xar kanamam saaw ma ne asalaamaaleykum mu ni wëlbët wan ma ginnaaw ni ma tegal foofu añ bi kii di ku ma ko may ma seel ki nit ku baax la mu ni ko doom boo ko amee dinga am ko baax xamoon naa ci fulla de waaye tey laa gën tey laa la gën a ndaw ñu ndox ko ko ba may ko ko moom ci sëñ Babacar Si radiyallaahu taala dama dama la tudd ñi rek mais maam Ahmadou Ndak sekk barke de moo ñaay ci gàmmu gi déglu ngeen Njaga sekk mu baax moomu ni mu ñu ko décrire man a mag ñu baax ñi nga fa am ñëpp ñëpp ñëpp jigéen na leen di jëkk a feejal moo tax jigéen dafa bara dafa jar bàyyi xel jigéen ak gone dafa jar a bàyyi xel moo tax sang daana wax ni bi ma ñëwee màkk mag ñee ma xeex ak màgg ñi borom alal yi gone yee jigéen ñoo ma jàppale léeg-léeg nga dégg nag ku ñuy tooñ ustaas na ustaas yi jigéen ñi rek jigéen ki moom jigéen ustaas yi ah waaye yow jigéen ñi eh, eh, yow man gën a fees àjjana ndax nit ku baax ku fi nekk di woote diine jigéen ñee lay dimbali jigéen ñi lay jàppale jigéen ñi lay wéttali boo demee ci daara yi jigéen ñaa ngi fees dell bëgg a xam seen borom bëgg a xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam di cotiser di defi kees di jàppalante dimbali daara yi ñu yore internet di jàngale ñëpp foo fi dem jigéen ñaay fóot jigéen ñaay togg ñooy sugale gone yi góor ñi taluñu lu bari donc kon jigéen ñi ñu ngi liggéeyal diina ji ñu ngi liggéeyal diina ji moo collaboration jigéen ñi ak sëriñ si lu yàgg la waaw mu ngoog moo tax mu ne marra romb nañ ñoom ñaar alamraatin ci jenn jigéen joo xam ne tuddaa ma nga tudd fatimatu bi fatimatin ci fatima muy sàkku ak joxasoo ak abdullahi waaw abdullahi lu mu ko wax alaaji malik mu ni walam turami amal xaraamu fal xaraam amal xaraamu fal xalaalu duunahu fal fal fal mamaatu def lu xaraam ma dee wuute ke moo ma ko beneen ba des sama kilifa jadd jadd zéro cinquante mètres ñemewuma ko xalaatuma ko ndax kilifa laa àndal gisal gisal lii waa alaaji Maalik jamono jooj yi Abdoulaye maa ngi yëgalu de Abdoulaye jamono jooj yi toll nu mu nu mu toll mu ne wa haasa isaaka Abdullahi sayiduna hadwan ila xayri naafi dayri wa naqami jamono jooju Abdullahi làq ci ay at hadwan chiifur hadwan mooy dix-huit ans xaa lonk gi huit la deel gi quatre la ñaata nga ma wax douze waaw gi di six douze plus ñaata la dix-huit a ngi noonu booba eh, sang bi alayhi salaatu mu ngi ci ndiggal Abdullahi seen sang boobu mooy ki ñu fas yéene dàqal loraange ak alkaande wa alaaji maa yi soxna soosu moom lu mu bëggoon mu ni li kay yu sa yiraha sadfan li durratihi dafa bëggoon a naqale bi njoolu ko ba jur sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu doon ko wax alal jooju mu ko doon jox ngir bëgg wéet ak moom ak bëggit moom mu xaru ni kii laay takk wala kii laay jël moo tax gis nga fi ne ni mbokk yi ba àdduna di baax dañ la daan tànnal sa baay dala daan tànnal wala sa nijaay wala sa yaay demal seeti kër diw demal seet sa nijaay diw demal seeti sa bàjjen diw waaye xam nga kañ la àdduna yàqu may tànnal sama bopp am na waykat bu ko wax may tànnal boppam waaw Mbacke Sylla booy tànnal boppam waaw waaw ak ak keneen ku waaw Mor Thiam mooy tànnal boppam ilaha illallah Njaga Seck mooy tànnal boppam ba yooyee xewee la àdduna tukki moo tax tànnatu leen dara lu baax taar rek ngeen di tànn te taar ku ñàkk kóllëre la taar amul kóllëre taar boo meree mu dem boo xiifee mu dem ba magate mu dem boo feebaree mu dem te taar lañu gën a bëgg te taar lañuy takk léegi moo taxit di nga ci gis yéen mu defaru ba jekk nga defee ne kii waaye nga def ci alal ju jeex dugg ca ñaari fan ñett mu dellu ca melokaanam nga génne ci moom moo tax su yu bari gaaw a tas mu ngoog waaw alaaji Malick ginnaaw ba mu rëccee ci xale bii ñu wax Fatima ci ku mu dal mu ni Aminata aminatu naqiyat an saairi tuhami dem na ci jigéen ju baax ju ñuy wax amina mi nga xamante ni moom mucc na ci bépp tuuma bu ñuy tuumaal jigéen lu yàq deru jigéen luy tax jigéen du jur wàlliyu luy tax jigéen du jurub yonent nee na aminatu mucc na ci yooyu ci tuuma aminatu du sol lu gàtt du sol lu yaraax du sol paccal du sol lenn lu ko góor di yabe mbaa góor di ko ko xeebe ba pare ku toog ca kër ndeyam la toog ca penku yaayam ba góor fekk ko fa ànd ci ay waay juróom ñu may ko ko gis nga loolu tam lu am solo la xale bu jigéen du gudd tànk lay Mbuub yàlla na ko yàlla yërëm daa war na ko way xale bu jigéen du gudd tànk buñ la waree seet toogal sa kër yaay liggéey sa liggéeyu yaay booy waaw loolu mooy mooy lem mais léegi bi pandang pandang jamee parang parang fu dee nga jëm fa moo tax loolu la dégg léegi ci fête d'hiver yi <laughs> ndooy maa ngi lay nuyu baax a baax a baax waaw macha allah <laughs> ndooy baan moom ah, ku baax ci réew mi la ku baax a baax yal na saw fan gudd te yàlla jàppale la bu baax a baax liggéey bu rafet rafet ngay liggéey ñëpp naw nañ la macha allah yàlla taxaw la ku tànk bu jekkiwul rek dëgg waaw tànk bu jekkiwul maanaam tànk bu toogul tànk bu toogul rek joggi dara loolu loolu mooy am ndaw soosu nag di aminata mi nar a jur bi alayhi salaatu wasalaam naqiyat mucc na an saayiri tuhami ci bépp tuuma waaw alaaji maalik ku ko mayee nag mu ni wa qiila zawajaha nee nañu am na ñu ne maye na ko wax bun baayam bi ko jur muy tudd wax bu am amul lu ñu leneen lu ñu wax mu ne yaa kañ wa qiila waxeef na ni wuhaybun rakku baayam wala magu baayam baay taxam amma haa baay taxam magi baayam wala rakku baayam wa mu mooy ka nga xam ne moo ko yar bi hijrihim yi ca seen kër yi ci seen famille moo ko fa moo ko yar nee na wax ndaw sii di aminata di yaayu yonent bi sallallahu xiina isin ca jamono jooju ala nisa sharafan moo tiim jigéen ñëpp ñëpp ñëpp ci tedd nge ndaw su tedd ndaw su tabe ndaw su yaarame ndaw su yiw ndaw su gàtt tànk ca gàtt bu làmmiñ mooy sunu yaay aminata nee na waa nisbatan ku rafet ab juddu la géñoo ci ndey géño ci baay maanaam meen ci ndey me géño ci baay yëpp a rafet yëpp a sell suñu way wa min xiiratil karami lil xiiratil karami lépp moom soxna si da koo làmb baay abdalaay mooy baayu nabi yaay aminata mooy yaayu nabi alimatu saadiya nampal nabi jirim la woon yaa rasuulallahi eh, yónnee leen may nen baax na daal dootuma ko laaj de waaw laaj Malick nu mu mujjee ni wafti xaaran ci puukare jekk na lool waaye ni mu jekke ci bind noon la jekkee ci jikko rafet na jikko sell na yiw na min jududihim la dale cay maamam ba ci moom mooy soxna soosu muy Aminata takk ga am na lu ñu mujjee laaji Malik mu ne fii chiir bi yow mi sinaal muxtaaru qad humilat wa qaala sahlu bnu abdallahi zulwadami ay ay nee na mbir maa ngi amee bisub altine ci tookër wala ci quartier wala ci kër Abdul Muttalib maanaam ci Cheikh bi mi sana ci kër maanaam jébbal gaa ngi am ci xur woowu daal foofa mbir ma amee layla larobati halla durru في رجب ثم المنادي نادي مسمع الفهم ليلة العروبة guddik altine wala guddik aljuma Leylal Arubati guddik aljuma nee na xàlla ci la wàcce al durr wurus wa nag allahu akbar Abdullahi ak Aminata guddig aljuma lañu leen boole fii rajabin tombeeg weeru rajab di bisub altine itam waaye ba leer ga toxoo ci ndiggal abdullahi dem ci ruxumu aminata alaaji nee na am na lu xew ñu ne ko si lu mu ndax yaa noonu yaa xaayisal baar mu ne sumal di topp an am na aji woote am na aji woote yu naadi di woote musmiil fahami di dégtal way comprendre ya musmiil fahami di di dégtal nand te ya nga xam ne xam nañu baatin munaadi alamul malakut waaw alamul malakut mu nga fay woote alaaji maaj kii woote lu mu wax tanabao anna نور القتم ليلكم قد حل في قيمة من أدحر القيام ألا نبي وليهم أجمعين سلام ربنا دائم من عمان بسبهم alaaji maa ngi nee na te nabbahoo ma la doon woote ma ngi naan te nabbahoo yeewu leen te nabbahoo jóg leen adduna bi jóg leen jóg leen jóg leen jóg leen mu lu xew mu ni an na nuural xat mi leer gi ngeen doon xaar muy leer gi nga xamante ne moo nekkoon ci Muhammad Nuur leer ga ma leen wax ca commencement ba ba weeru gàmm wooteeroo leer googa xal la wàcc na lay kum ci guddik tey gii leer googu suñu borom transféré na ko génn ca ndigal Abdullahi ma nga ca ca jumbux suñu yaay Aminata Ba allahu akbar la ilaha illallah qad xalla wàcc na fii qiimatin ci xayma boo xamante ni min at xalil qiyami moo gën a sella ci xayma yi sa xayma bu sell alaaj Maalik waaw loolu rek la wax mu ni déedéet an atiro wa bax xiiru xayral buxuuri wa arisu sajaadaati takriman alal quzami an atiro wa bax xiiroo xayral buxoori wa afrisu sajaadaati takriman alal qudami attiroo nee gëttu leen gëttu leen jóg leen ngeen sangu ba set wicc sol yére yu rafet da ngeen laal parfum wala cuuraay gëttu leen wa baxiru te ngeen taal cuuraay cuuraay yi lu neex na lu neex a neex a neex xëyral bu xuuri wa afrisho te ngeen nag lal nag ay sajaadaat seen sajaada ngir lan takriman teeru teral alxusami ki nga xam ne moo nar a génne ci toskare laa la illallah gàmmu ñëw na kon gàmmu ñëw na alamul malakot ci la xaatis bi doon waxee li mu wax ni kon ku naan gàmmu bi daal ah mu ngoog daal ndeysaan alaaj maa yi loore la mu ni déedéet xaalal amlaaku xaalal malaayiku xaalal malaayiku abwaabu sama futihat kazil jinaanu wa nuuru shams fil malaaka yaa nga naan bunti asamaan yëpp ubbi nañu ko bunti asamaan juróom-ñaar yëpp ubbeeku na kazal jinaanu ni ko àjjana itam ubbi nañu bunti àjjana yëpp wa nuuru shams leeru jant bi fil adami nañ ko leer ngir lan kii waaye ñëw sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy xaatimu nabi ina wa imaamil mursalin moo fi dàqale jële fi ak lëndëm indi fi ak leer leer gu ne naññ leeruk lislaam dàq fi ak lëndëmuk ceddo bokkaale yàlla ak lekk midd njaaloo ak rey bakkan indi fi juboo indi fi démocratie égalité bu mat sëkk ku ne moom ñëpp tegu ci yoon googu leer la leer gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi te loolu asabaaru juróom-ñaar yi ñu ubbi àjjana ji ñu ubbi leeru jant bi ñu bi ñu yokk euh, loolu lay symboliser waaw xanaa nag moom Iblis moom fu mu ne alaaji maa ngi tey am na gàcce gu rëy am na gàcce gu rëy a rëy rëy rëy wa anna ranna laayinul xabb yaxduruhu junuuduhu wa huwa radiidun min as-salami ay alaaji Paari billaay lii su ma ko mënoon a firi doon dinaa ami laaf waaye mënu ma ko firi waan na liy mbir mbir nag ran na bindi na wonk na yuuxu na ba fu baata mën a yem allah aynu noonub yàlla ba noonub mbindeef yi mooy iblis ndax keroo bi nga xamante ne leer googu ñëw na ci la ne moo woo woo man fu ma jëm sama yelwaan këpp na yàqu naa ki gën ci mbindeef yi nga ne mënuma ci moom dara mënuma ci aw xeetam dara kooku moo fas yéene ñëw jamono yàqule naa samay doom yàqule nañu nee na yaxduruhu dikkee na ko junuduhu doomam ya ak ña ko doon liggéeyal xam nga iblis day xëy di tasaare ay njabootam ñii da leen di xëy yóbbu ci garas yi ñii mu yóbbu leen ci marché yi ñii mu leen ci bureau yi ñii mu yóbbu leen ci sëy yi ñii ñii ñii fu ne dafay yabal nit ay jaamam moom Iblis moomu ko bon la dafa am équipe bu bon bu koy bu koy yàqale ñi mu yabal ci gaaras bu ngoonee bu ñëwee bu ne tey de fexe naa ba cox sóoree ak safari xeex xeex bu métti jamante paaka génnee danaan cell du wax dara bu ñu am ku yónni ko yi man na tey jii. fexe naa ba waa marché ba tey daanaka mën naa la xeex la nu yendoo danaan ci yàlla muy am kenn ku ñu ngi mën de fexe naa ba directeur licence ñu baree baree bare tey moom ñu bare tey moom koy sama liggéey réussir na mu ne waaye bu ne ah, tey am ku jóg ni ko man de fexe naa ba ñaari ñaari couple yoo xamante ne ñoom ba ñuy ànd ñëpp doon ñëpp ngi doon di ciikar ci di leen ñaanal fexe naa ba ba ñu fasante mu daal di jóg ni très bien merci beaucoup jërëjëf yaay ngen yaay ponkal yow maa la naw pour wax la ni la sëy bu yàqu moo gën a neex iblis suukar ak lem moo tax yéen na ngeen di teey trop ci gaaw a fase gaaw a dóor na ngeen ci def ndànk amul solo iblis balay bég dëgg dëgg dëgg yëg na am na kuubal bu tas yàlla na dee moo bon waaw lan la wax nag bi gaa yi ñëwee alaaji maali mu ni wa qaala waylakum yaa ummati xummilat fi haasihi durratun misla ahsani tawami laa ilaha illa allah wa qaala mun leen waylakum toskore ngeen dee ngeen seen yelwaan këpp na yaa ummati yéen sama équipe loo tax mu ni xummilat ëmb nañu fi haasihi ci lëpp ci guddi gii durratun wurus woo xamante ne nii mooy leeral àdduna ak gain koos cause gi ma amoon ci nit di leen fënqale di leen di tibb lu bari di yóbbu safara ndax man safaraay sama kër kii tax loolu dootuma ko man kooku judd na ndax ëmb nañu ko mu ngi ci biiru jigéen mi ngi ci biiru jigéen allahu akbar mu nga ca mbéemuur waaw laa maalik fan la mujje mu ni wa jaa aadamu tabshiran wa hiisulahaa idrisun nuuxun wa huudun walqalilu simi suma sabihu kalimullahi kilmatuhu min awali chahri fi tartibi laa tahimi mu ne jaa aadama maam aadama alayhi salaatu wasalaam ñëw na ca ëmb bu ca ca weeru jëkk wa tabshiran daal koy bégal ni ko aw euh, amina bégal te kontaan te xam ni ki tax ñu bind nu ñun ñëpp yaay ki ko ëmb ci yow la ko yàlla jaarale nee na siis waxoon naa ne kuy siis ñëw na moom itam deuxième mois ba ndokkeel suñu yaay Amina ni ko jaraa boot massa yaa ëmb ki gën ci nit ñi ki tax ñu bind ñu bind àjjana ak safara kursi yaa ko ëmb ñetteelu weer ba yontu yàlla Idris ñëw wax loolu ñeenteelu weer yontu yàlla nuux ñëw juróomeelu weer ba yonent yàlla huut ñëw juróom-benn lu weer ba yonent yàlla ibrahima alayhi salaam ñëw ndokkeel ko niki noonu tam juróom-ñetteelu weer ba suma sabiixu ismaila ñëw ndokkeel ko juróom-ñetteelu weer ba kalimullah Moussa mi nga xam ne moo daan wax ak yàlla directement ñëw ndokkeel suñu yaay amina nee na nag juróom-ñeenteelu weer ba nag kilmatuhu suñu maam isa alayhi salaam ñëw ndokkeel sang bi ndax yaayam euh, moom aminata moo jur sangu sang yi alayhi salaatu wasalaam mu ngoog alaaji maaj nee na ala wa alayhim ajmain ala nabi wa alayhim ajmaina سلام ربنا دائما ما بسبهيم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما ما بسبهيم alaaji maa ngi nee na ala nabi yàlla nekk ci sang bi alayhi salaatu wa salaam wa alayhim ak yonent yi yëpp yëpp yëpp ajma si ajmaina mboole seen salaama mucc ak yërmande yàlla rabbi naa guy sunu borom daayiman faw am man bi sax bi himi ba ba ba àgg ba ci saxaabaam yi Ababacar Omar Ousmane Ali ak mboolem ñëpp ak taabiina wa taabii taabiihim ñoom ñëpp ñaan gii la Alaaji Maalik daanele ci eh, eh, eh, ëmb bi te dara xewagul waaye mbokk dañuy teg suñu baaram fi ndax waxtu wi dafa jot incha allah ajjuma ji la ñu ñëw danañ continuer ak yéen nag ndax xam ngeen nag sang bi alayhi salaatu ëmb nañu ko mi ngi ci biiru yaayam tey yaay ji lañu war a topp nag naka la ko mën a wasine ak it wasine nga noo mel ñu door dugg na ci sang bi alayhi salaatu wasalaam lii ñu doon wax lépp di ko wër lu mat juróom-ñaari émission def nañu ko tey ñu sang bi alayhi salaatu nag mi ngi door dugg nag ci biiru yaayam muy aminatu mi nga xamante ne moo tiim mboolem jigéenu àdduna bi yëpp alayhi salaatu wasalaam kon nag incha allah ñu teg foofu suñu baaram di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm Pape Laye Dieye sama xarit suma copain moo nekk ci technique bi l'infatigable tabaarkaal di contrôler ak di segg baat yi macha allah yàlla nag yàlla may ndam te may ko wér te may ko soxna nag ci wér atum 2020 bi Ablaye yàlla nga am soxna yal na yàlla mottali Pape euh, Oustaz Alioune Sall maa ngi lay xaar léegi allah mais jëm ci tafsir bi itam macha allah yal na yàlla defal la tawfiq di leen xaar sëñ Mbacke Sylla incha allah ci jotaayu daara yi alxamtu incha allah 22h30 dinañu deesuwaat maag alxaji imam Mor Seck al alimul allama al faham ñu ñëw nag ci al minbar incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.